moo di chaîne YouTube bi. Mhm. donc euh, comme chaque jeudi rek dañuy waxtaanee ay point yu important donc mmh. aujourd'hui point bi ci njëkk dina ci bokk l'affaire Mame Mbaye Niang. Mhm. Euh, euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ne ni ki suba. Euh, war nañ ko amal foofee ca cour suprême donc euh, ñu waxtaan aussi ci li nga xamante ni moo di l'inéligibilité de euh, Sonko waxtaan ci mbirum cour suprême mi nga xamante ni jamono ji mm. moo yor le dernier moo ci mbir moomee buñ ci paree wax ci affaire Ndiaga Diouf Barthélémy Diaz bi nga xamante ni mm-hmm. Euh, moom laa bëgg a wax ni que mooy euh, moom la ñu war a jugé ni ki ëllëg mhm. foofee ca cour suprême wax itam ci trafic de drogue bi nga xamante ni mhm. euh, lëmbe na bu baax a baax Sénégal daal di nag wax njeexital yi nga xamante ni mhm. mën na ci am ak administration sénégalaise bi nga xamante ni jamono ji dafay refuser ngir exécuter li nga xamante ni moom la ñu woowee décision de justice Pape mais on va d'abord commencer par l'affaire Mame Mbaye Niang mi nga xamante ni Euh, war nañ ko juger ni ki war nañ ko amal foofee ca cour suprême mhm. donc euh, euh, pourquoi d'abord ñu traité ko avec tant de célérité maanaam Pastef bi nga xamante ni moom lañ ci wane au moment où des justiciables jamono ji ñu ngi xaar pour ñu édifier leen ci seen sort depuis des années waaw mais jërëjëf soxna si si thème yi nga xam ne moom nañu war a waxtaanee tey mais danga may ñu ubbee ci benn mbir mhm. euh, bi nga xam ne mënuñu ci euh, ñàkk bañ a wax muy soxna si nga xam ne mooy directrice générale u société biñ naan euh, xaw ma nan project muy faatu Cissé faatu Kinde Cissé fan yi passé dafa dafoon benn sorti ci Seneweb mhm. doon expliquer ay contrat armement yi xam ne daf ko waroon am amoon ay nit ñu ci seqal ñu ci waxtaanaloon dem ba ci biir ñu xaw ko waaw xaw ko këdd quoi xam nga Sénégal fii gaa yi dañ lay dóor. bon dóor boobu nag mu demoon toog fële ci Sénégal di ko di ko ñaxtu di ko métti lu tudd ci mhm. nag ay kilifa yu bëri. Ah euh, ci noonu nañ ne gannaaw barki démb. Mhm. Euh, mardi. Euh, dañ ko arrêté bañ ko arrêté tey jii ñu defeere ko defeere ma dañu koy defeere nag ñu toppee ko diffamation mooy benn toppee ko euh, diffusion euh, de fausses nouvelles uh-huh. toppee ko maanaam ni que dafa dafa dafa ñàkk wormal dafa xotti worma secret défense mooy maanaam dafa wax ci ay contrat yi nga xam ne mun na normal sécurité réew mi mais man gars bi ñuy bind des fois damay reetaan quoi bu ñuy bu ñuy accuser c'est-à-dire ñoom affaire imagine rek wax bu tudd boobu noonu mun na normal sécurité réew mi waaw soo na soo moom lañ defeere tey jii ci mhm. charge yooyu nga xam ne moom lañ teg ci ndoddam mhm. man li ma ci njëkk jaaxal rek mooy biñ ne euh, dafa xotti war ma secret défense waaw man lépp te loolu mooy maanaam am na këyit. am na këyit ba nga xam ne génnee na ko. Mhm. wala am na firnde ba nga xam ne joxee na ko. Mhm. bu wanee ni que euh, xotti na war ma secret défense mais man seetaan naa vidéo bi. Mhm. mais ndaw soosu génnewul këyit génnewul lenn lu wanee ni que euh, lii secret defence la wax na nag wax na tudd ay nit. waaw donc euh, loolu laa ne woon daañ ko ubbee pour wax rek encore une fois dëkk bi daal doy na waar mais buñ ne da nga xotti war ma secret défense loolu est-ce que du aveu sax d'abord parce que buñ ne ko woon faux et usage de faux mën nañ la li muy wax du dëgg waaw damaa bañoon damaa bañoon damaa bañoon dugg ci ave bi rek comme gars yi dañoo mën a dañoo mën a toppee <laughs> toppee la mbooro léegi <laughs> dama dama bañoon rek ñoom léegi comme ñoom maanaam dëgg nañu li ndaw si wax ñuy dañuy laaj boo laajee boo wax rek mooy maanaam li ndaw si wax moom dëggal nañ ko mm. ci gàttal <laughs> ak ci xam-xam parce que saa Moussa Diop faux usage de faux bokk na ci li ñuy teg ci ndoddam ndoddam parce que dañ ne li muy wax euh, c'est pas avéré. waaw mais kii de moom waxuñu ko de kii moom waxuñu faux usage de faux. Hmm. donc daal mooy maanaam daal euh, dëggal nañu daal dëggal nañu jëmmal nañu moom li mu wax quoi. Hmm. Euh, foofu laa bëggoon ñu ubbee après soog a nag daal di ñëw ci. l'affaire Mame Mbaye Niang hmm. waaw mais de c'est nag c'est une excellente question. Uh-huh. affaire Mame Mbaye Niang euh, nga xam ne euh, bañ ko commencé àtteeg léegi je crois ci juróom-benn weer wala juróom-ñaari weer la toll. Euh, ñuy fàttali ni que dafa jiiñoon Ousmane Sonko ne que Ousmane Sonko daf ko diffamé. diffamation oui. waaw diffamation ñu jël dossier boobu. àtte ko première instance. moom Mame Mbaye Niang ñu yëkkati woon ndàmpaay gi nga xam ne fii ci Sénégal ci wàllu diffamation uh-huh. soo demee analyse judiciaire u Sénégal c'est la première fois ñu fay fi nit ci wàllu diffamation dommage intérêt deux cent mille deux cent millions c'est la première fois uh-huh. mu taxaw fii buntu tribunal tàccu fecc daal dina kontaan na yoonu Sénégal euh, setal na ko waaw uh-huh. après defaat conférence de presse. suba si xam naa ne boobu mooy ba ko gars yi ne non jarul ngay gaaw mm. euh, di fecc di kii. parce que ñun li ñu bëggoon mooy waa ji bañ a nekk candidat. Mm-hmm. deux mois yi doyul. mu ëlbatiku daal di def appel. procureur yokk ci moom it def appel sur la peine parce que Mame Mbaye Niang mënul def appel sur la peine moom sur euh, les intérêts mooy maanaam ndàmpaay gi la mën a def intérêt. Mm-hmm. Euh, ñu dem kon condamné Ousmane sunk en appel à trois mois de prison avec sursis. léegi recours boobu pour en cassation ba nga xam ne moom la Ousmane Sonko dugal. Uh-huh. moom la ñu nar a àtte. le 4. le 4 oui. janvier janvier incha allah. mais Salma benn affaire moo ci xaw a ko man moo ma xaw a yëlëm moo ma jaaxal te moo jaaxal Sénégalais yëpp. mooy lan. ci juróom benn weer juróom ñaari weer. ñu jël dossier Mame ñaa Niang fast track ko. Uh-huh. tak tak tak tak mu sotti. Uh-huh. am na loo nga xam ne dañ ko war a waxtaane muy dossier Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz oui. 2011 dañ ko toppee woon gannaaw bañ ne bañ ko accusé ne dafa buum kii di Ndiaga Diouf. 2011 mhm. ba tey jii. Mhm. ci nguuru Ablaye Wade ba nguuru Ablaye Wade geex ci nguuru Macky Sall ba nguuru Macky Sall di waaj geex. Mhm. dossier baa ngi fii ba léegi àggagul Cour suprême mu ngi nii euh, suba incha allah nañ ci war a sëgg. question bi nga xam ne légitimement. ñëpp dañ koy posé wu. pourquoi cette précipitation. waaw mooy maanaam est-ce que Mame Mbaye Niang. Uh-huh. moom sénégalais la ba nga xam ne dafa war a am un traitement de faveur. Uh-huh. ou bien Barthélémy Diaz dafa doon un sénégalais bi nga xam ne mooy Barthélémy ak ñeneen ñi nga xam ne seen dossier yaa ngi cour suprême di xaar laay wax. Uh-huh. dañu nekk ay sénégalais yi nga xam ne ñoom. justice bi amul seen jot uh-huh. parce que soo gisee célérité yaa ko wax sànq si sa question mais y a des raisons de se poser des questions uh-huh. bu ñu wax nag que le temps de la justice ne pas le temps de la presse ou n'est pas le temps des politiciens mënuñu jël dossier ci fukki at ak ñaar uh-huh. téye ko jël benn dossier ci juróom benn weer juróom ñaari weer ñu bëgg tax taxañ boobu parce que dossier boobu dafa concerner un candidat a la présidentielle pas n'importe quel candidat un candidat bi nga xam ne le principal opposant waaw principal opposant et tout tout lu doon gagnant pour les prochaines élections mhm. moo tax ma ne tey ji lii sénégalais yi di kaas lii sénégalais yi di métitlu mooy que justement ce nivellement au niveau de la société sénégalaise ce nivellement au niveau de la justice sénégalaise uh-huh. mooy maanaam Pape Sané buñ ko jàppee dañu koy taxañ vite fait varrararar uh-huh. keneen moom am na ay faveur ya nga xam ne moom dossier mu mun nañ ko voilà quoi donc yooyu uh-huh. euh, c'est des question yi nga xam ne légitimes que les Sénégalais se posent donc quelle que soit l'issue de ce procès du quatre juin mooy que dans leur tête les Sénégalais xam nañ ne gëm nañ ni que lii nii benn process benn processus bu ñu déclenché la woon. Mhm. juste pour condamner définitivement un opposant un opposant waaw. un opposant boo xamante ni dossier sur dossier la comme ni nga ko waxee moom il eu à porter plainte plusieurs fois mhm. mais plainte yi aboutirul mais suffit que kenn porté ko plainte rek mu mel ni gars yi lañ doon xaar. waaw mais euh, merci ci ci précision boo ci laaj bi laaj bi nga xam ne tamit dafa ànd ak précision bu bu am solo. Mhm. Euh, xam nga justice dafa bokk ci li ñuy wax les derniers remparts de la démocratie mhm. seulement quel que soit suñu justice bi nu mu munti mel mhm. bu ma la tooñoon tey jii ci justice boobu ngay dem mhm. man mii buñ ma tooñoon ci justice boobu laay dem moo tax justice nag dafa am taxawaay bi nga xam ne dans une société comme les nôtres dafa war a am taxawaay bi nga xam ne chaque citoyen daf ci war a gis boppam ay yoonu yoon porte na plainte du moom kese man mii di wax ay yoonu yoon porte naa plainte mhm. ñu ngi foofu di nelaw waaye keroog de bañ ma soxlaa dañoo ñëw këppatal mu ne ma kuréet yóbbu coppet yóbbu pour ay caaxaan mhm. xam nga yooyu tamit ça pousse à la révolte et ça pousse au questionnement pourquoi mhm. man su ma porté <laughs> du am benn suivi. Uh-huh. pourquoi diw bu porter plainte waaye ñëpp taxaw fast track affaire bi vite fait. Uh-huh. mais yéeme naa ci dëkk. ba pare ñu bëgg nag dëkk bi nan nit ñi nañu dal nit ñi nañu leen respecté. Uh-huh. nit ñi pour ñu respecté mooy que la nga xam ne moom nga leen amee da nga leen koy jox. parce que fii nag ce n'est pas comme en Belgique. ce n'est pas comme au Royaume-Uni. ou la la loi est dite au nom du roi. fii mhm. elle est au nom du peuple sénégalais. Mhm. nañu respecté loolu. mais li ci li xaw a doy mooy euh, cette justice qui est censée être rendue au nom du peuple peuple boobu chaque fois bu ñu rendre une décision on se pose la question kan lañ ko rendre peuple bi l'État wala kii. waaw xam nga damay fàttali keroog fii ci benn émission je crois que c'était fii maak Fatou maak Feuz mii la woon. Mhm. ma ne bu ñu demee ci dëkk. ba nga xam ne justice bu rendre décision ñëpp jóg di tàccu uh-huh. mais on a des de se poser des questions c'est-à-dire que ñun àgg nañu à un niveau bi nga xam ne c'est-à-dire que c'est très simple dama koy relativiser mooy ñu nekk ñun ñi am bokk benn bàyyi bokk benn ndey nekk ci biir kër mi uh-huh. di jot suñu yaay teg ceebu jën ñun ñëpp di toog di tàccu parce que ñi ngi lekk uh-huh. mais c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave extrêmement grave alors bu ñu gisee fan yi euh, mu am ay décision de juge bu amee nit ñi dañuy jóg mais dañuy gis sénégalais nu ñu libéré woo ouf de soulagement bi ñu jël ces magistrats là on les porte en héros ñëpp di wax foo tourné ñii lay tuddal ñooñu uh-huh. et pourtant ñii ñoom xoolal bokk nañu am nañu ay morom yi nga xam ne ay téeméeri téeméeri morom yi nga xam ne yu mel ni moom ñu ngi ci biir magistrature bi uh-huh. mais malheureusement ñoo noonu dañ nekkul ci ay position yi nga xam ne yoon yoon may na leen ñu mun a taxaw jël ay décisions. Uh-huh. mais donc c' est là où il faut se poser des questions. Uh-huh. est ce que justement. oui le droit fii au Sénégal. Uh-huh. comme nañ koy apprécier comme beaucoup de Sénégalais l' est ce que il n' est pas temps qu' évolue dans le sens où vraiment yoon li muy li muy li nga xam ne moom lañ ko sant. le pouvoir judiciaire les cours de tribunaux la ñu leen sant mooy ñu koy def mooy que les décisions de justice soit prononcées au nom du peuple sénégalais c'est-à-dire que c'est vrai que amul une justice parfaite mhm. mais war nañu mun a fexe ba nga xam ne tous les sénégalais se retrouveront autour de ces de cette justice quelles que soient les critiques quelles que soient et mhm. donc loolu lu am solo la waaw lu am solo la mais euh, tey jii dañuy rester ci affaire Barthélémy Diaz mais da nga nekkoon ci mbirum décision de justice.